Kaw Gourdin Baye Ma Ndiaye di bëggee ñëpp ñoo xamante ñu ngi ñu topp di bëggee waa Grand bu baax a baax sama gox di bëggee waa Touba waa Mbacké waa Darou Salaam Matar Diop sama xarit maa ngi lay bëggee Papis borom ñàgg borom Grand sama doomu ndey maa ngi lay bëggee Ahmed Loos Ndiogu Pafal Galas bala sama lakkal Ousmane ñëpp maa ngi leen di bëggee di bëggee waa zone ZB bi yëpp bëggee waa zone de captage sama mafia bi bi Bamba bi Elimane Sall Ngañ Papa Ndiaye Kaaw Gourdin Baye Ma Ndiaye Baye Ma Ndiaye Kaaw Gourdin Baye Jili Kolobaan maa ngi lay bëggee laay laaxay lala grand combat arbitre yaa ngi wax la lambo bëgg la lambo bañ Kaw Gourdin Baye Ma Ndiaye ñaari mbëree Kaw Gourdin si victoire la jógee ma mujjee daan Ronaldinho Baye Ma Ndiaye mu ngi mujjee daan Bébé Bismi arbitre bi soufflé na Ma Ndiaye Baye Ma Ndiaye Kaw Gourdin arbitre ba soufflé na Baye Ma Ndiaye Kaw Gourdin ñu won ginnaaw Baye Ma Ndiaye lañ jàkkaar lool di bëggee Omar Saliou di bëggee Matar Diop sama xarit Matar Diop sama xarit maa ngi lay bëggee di bëggee Papis Papis sama doomu nday maa ngi lay bëggee Carlo bu mag bi Baye ma Ndiaye kaw Gourdin Ba Djili Colobane Sañse Ba Djili Colobane Sañse Baye ma Ndiaye ak kaw Gourdin ngi lewaatoo Baye ma Ndiaye ngi na teg kaw Gourdin ngi na teg kaw Gourdin añ na loxo ba pe gauche ba Baye ma Ndiaye lemu na ñaari mbër yaa ngay lewaatoo lewato ba dimna Baama Ndiaye Kaw Gourdin Kaw Gourdin ajal na ko pied gauche di diree ko di ko rek Baama Ndiaye dox na si kawam ñoo ngay xeex ñaari mbër yaa ngi xeex Kaw Gourdin Baama Ndiaye Kaw Gourdin Baama Ndiaye Kaw Gourdin Baama Ndiaye arbitre Kaw Gourdin Baama Ndiaye Kaw Gourdin daan na Baama Ndiaye Kaw Gourdin daan na Baama Ndiaye ba toog si kawam Kaw Gourdin daan na Baama Ndiaye ba toog si kawam Kaw Gourdin daan na Baama Ndiaye ba toog si kawam Kaw Gourdin daan na Bama Ndiaye ba toog si kawam Omar Saliou Omar Saliou Kaw Gourdin daan na Bama Ndiaye ba toog kawam lamb wanate na boppam Bama Ndiaye daan Kaw Gourdin daan na Bama Ndiaye ba kawam lamba ngoog mbokk internet yi Bama Ndiaye daa desee respecté Kaw Gourdin Bama Ndiaye xanaa xamoo Kaw Gourdin mi ngay bëreel Kaw Gourdin lambu lambu lamb am na si yow yaakaar da ngay jox làmb ak xam Kaw Gourdin làmb li si war da koy def Kaw Gourdin kenn mënut la bañ say morom Kaw Gourdin say morom kenn mënut la bañ bëre nga xeex nga duma nga sa adversaire daan nga ko Bamba Ndiaye de bul démérité champion nga doon bëreel da ngaa xamul ki nga doon bëreel Baye Mandiaye da nga xamul ki nga doon bëreel Baye Mandiaye xamoo ki nga doon bëreel Baye Mandiaye xamoo ki nga doon bëreel Kaw Gourdin naanaan la Omar Saliou Baye Mandiaye daa mel na xamul ku mu doon bëreel champion la doon bëreel Kaw Gourdin mbokk internet yi OSTV di leen pege di ziyaare di leen jox seen wàcci waay saa su ne Baye Mandiaye ngi tëdd sa digg géew ba Baye Mandiaye ndaanaan nga doon bëreel di bëgg ñëpp di jox cër ñëpp